jamono ji euh, ci wàllum euh, dañuy euh, président Idrissa Seck dina doon candidat wala doon candidat gis nañu ministre ñoo xoobu jax tara dem këram seeti ko ba kiréem bu e, ak moom ne moom Idrissa Seck mooy mentoram te lu mu ko sant dina ko def su bëggee sax mën na wax président mu jëlaat poste ministère boobu ñu ko dénk ndax naka ngay analyser jëf boobu Yankhoba Diattara def maanaam xam nga kenn doon na wax ni rencontre kilifa ak doom bu nangul kilifam rek la euh, kilif Idrissa daf def jëf kilifa ndaxte Yankhoba Diattara xëj na am na wax ju nga xam wax na ko bu mu waruloon wax si benn jotaay kilifa gi wan ko ni kilifa laa man maay sa kilifa def li muy def jël ay ndogal bi mu ko jëlee tamit doom bi nangu kilif tees ñëw ne ko ah bàyyi di juum naa maa ngi jéggalu di euh, si topp nag wax li mu wax loolu nag jaakaar naa ni amul lenn luñ si euh, luñ si mu ne analyser lu dul euh, buñ koy tënk daal kilifa bu bu bu mot kilifa taseeg doom bu nangu kilifteef loolu rek nañ si wax waaye ku xam jàpp naa ni am na as tuut lu ma xam si Yankhoba Diattara mu nekk ku loyal euh, ku fidèle si président Idrissa Seck et je crois que Euh, nettali xulo xulo la li xewoon xew na li passé passé nga le ministre Diatara ñëw na baalu et que je crois que loolu moom euh, ñu am nañ si mbégte loolu ñu ngi xam ne dañ nekk si kepp keppaaru Idrissa Seck. est que loolu nag Idrissa ngeen koy laaj <laughs> jàpp nañ ni euh, et moom d'ailleurs je crois que du. du lu nga xam ne si obnubilé wu maanaam le le le le le ministre Diatara wax na ko euh, avec ou sans poste il est toujours aux côtés du président Idrissa Seck moi je pense que euh, yu bëri teraanga yu bëri jaar nañ fi Diatara comme ni mu ko waxee joxuñu ko mais dafa toujours nekk euh, au service du président Idrissa Seck bi ngeen bu leen fàttaliku ba ngeen yaa ngi euh, n'était pas le vice président il a il y a deux ans Déthié Fall moo doon vice président bi nekk am na ko si parti bi et donc euh, véritablement tey jii jox nañ ko keneen je ne pense pas que c'est la fin du monde et que ndax dina ko delloo ko loolu ma ne loolu sax véritablement mi ngi si xelu jatara li am solo rek mooy. Euh, wax na ni euh, daal euh, Idrissa mooy kilifaam te nag véritablement loolu moom rek moo am solo leneen li si topp nag c'est de l'histoire leneen li si topp nag àddina noonu lay doxee et donc amul benn problème amul benn jafe-jafe si foofu. kon mën nañoo jàpp ne réew mi moom supporté wul troisième mandat. bon réew mi supporté wul man du ma dugg si problème mu troisième wala deuxième mandat li ma xam daal mooy man. Chouaib euh, Koulibaly euh, di nekk euh, le président de Rewmi Diaspora Stratégie di kuréel di nekk responsable Rewmi fii États-Unis coordinateur Rewmi États-Unis sama candidat daal pour 2024 mi ngi tudd Idrissa Seck jeex na ndax dafay dem si coalition bi nekk le candidat de la coalition wala na dafay dem Euh, si bannière réew mi wala dafay am beneen coalition buy am buñ koy jiitalee loolu xaw ma ko li ma xam daal ak li ma bëgg ak te bëri naa si moroom ñu ñëpp li nu bëgg mooy président Idriss Seck nekk mille candidat 2024 maintenant deuxième troisième quatrième mandat yooyu moom euh, du ma dugg si débat boobu c'est du juridisme inutile parce que troisième mandat keneen ne no non non non c' est pas un troisième mandat c' un deuxième c' est un deuxième quinquennat et cetera et loolu moom euh, du ma dugg si si débat boobu li may wax rek mooy ma li ma amal solo mooy sama candidature candidat mooy le président Idrissa Seck